dir ci euh, sujet yu bëri yi ñu préparé tey jii ci bis bi internautes itam dañu am place bu rëy euh, ci euh, quartier général Marianne Siva mooy nekk ak ñoom alors suñu hashtag bi xam ngeen ko QG muy Twitter Facebook ba ci Snapchat di ngeen am possibilité suivre coulisses yu quartier général Marianne loolu defe naa dëgg la ma bàyyi la nga fàttaliwaat téléspectateurs yi naka la ñu mën a def pour bokk ak ñun ci jotaay bi ak fu ñu mënta nekk ci àddina grâce ak internet Euh, grace ak internet Pape ni nga ko waxee noonu la waaye laataa loolu ma nuyu la nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa toogal ci plateau bi yëpp ni nga ko waxee dëgg la Pape euh, quartier général tàmbali na euh, boo leen bëggee participer mun ngeen dugg via Facebook slash QGTFM mun ngeen fa am itam li nga xamante ne moo di direct. Euh, quartier général mun ngeen euh, ñu suivre également via suñu application boobu di GFM et application bi nag comme ni ma ko tàmm di waxee dañ koy télécharger gratuitement boobu bu fekkee da nga yoree li nga xamante ne moo di iPhone yaa ngi dugg Apple Store boo yoree beneen xeetu Android yaa ngi dem Play Store télécharger ko doo fay dara application bi nag boo dugg see ki nga xamante ne moo lay dalal moo di Pape Doudou Thiam Magadi on air moo lay wax programme télévision Futur Média programme lépp luy support bu nekk fii ci biir fut lépp luy support lu nekk ci biir groupe Futur Média bu la dalalee nga tànn li nga xamante ne moo la neex quartier général da nga ko fay am en direct comme ni ma ko tàmm di waxee euh, application bi nag dafa am lu bees lu ci nekk ndax télé euh, li nga xamante ne moo di TFM religion mu ngi ci biir application bi ITFM information en continu da ko fay am ak suñu gan di waaj a ñëw muy King FM di ko am ci biir application boobu application bi da fay suivre li nga xamante ne moo di quartier général en direct bu leen fàtte li nga xamante moo di Mediatek TFM Mediatek GFM Mediatek GFM nag lépp loo xamante ne mës na daw ci biir télévision Futur Média ba rajo Futur Média da nga ko fay am li ngeen di def rek mooy ngeen jokkook ñun ci 33 869 91 82 wala 33 869. 91 83 wala ngeen binduñu ci médiathèque arobase gfm point sn kon Pape ni mu ko waxee quartier général tàmbali na si kanam dinañ am Père Laye jaw incha allah Pape Cheikh. voilà depuis que ñu annoncé ni euh, euh, couleur émission bi tey ñu ngi doon gis seen ay commentaires ak euh, lépp loo xamante ni am na ci mais sama gars yaa ngi nii dañoo sedd dañoo sedd meen. bu leen sedd meen sama gars yi dañu découragé tey <laughs> voilà mais bon. waaw sport moo demee noonu. c'est te dara safu leen ñu dañuy découragé découragé. courage découragé la en réalité <laughs> lu ñu waxante la ci ginnaaw <laughs> xale bi jóge France uy journaliste bu bees bi moom rek moo ñu um <laughs> safur la bañ duree jàmm je blague parce que Sénégal yëpp nekkoon euh, ci ginnaaw équipe nationale bu euh, Sénégal mais bon comme ñun lu ñëw rek dañu koy détourner pour euh, jële ko ci façon bu gën a bu gën a reetaanlu loolu mooy tax ñu nekk ci jàmm mais tey on a prévu tellement de choses dem baaleek dem toj Dakar quoi Eh, yére ba ma passé woon sax dama ko lemaat di xoola maa ngi jënd benn pain boo xamante ni moom la tey laa ko bëggoon inauguré fii ci le kii petit théâtre léegi naa am na soirée tey <laughs> li ma naroon tey <laughs> non xamuñu li ñu yàq sax bon après c'est ça le foot Bijou est là euh, ñu ngi lay nuyu euh, elle vient nag moom fraîchement de la France imaginez euh, Fashion Week bu France bu euh, bu muy événement muy <laughs> sa mayo mayo bi eh, mayo bi si miji ko baal ko rek. Mouhamed sa mayo bi s'il te plaît <laughs> maillot bi la ñu bi dama simi ko demal demal demal <laughs> et lu garaawu ñu dal tey préparer émission boo xamante ni pour Lions yi la woon. vous allez vous rendre de ça bu ca kanamee reportage yëpp pour gaynde yi la woon. bilaay ñii liñ ñu def <laughs> eh mayo bi mayo bi mayo bi. 2019. kan la Sadio lañ ci bind wala ma xool Mouhamed d'accord ok Mohamed Diaw Baldé Keita <laughs> alors je te laisse le soin euh, ñu takkal la sa micro Mamadou Mouhamed Ndiaye après nga wax ñu mayo bi ndax dangay continuer ak moom ba émission bi jeex ou bien euh, da nga koy dindi avant ñuy démarrer Bijou na nga def waay. sama waa ji kañ nga ñëw. ñëw naa démb. yow de fekkoo fi nouvelle bu nekk. mais dafa rax bleu. le bleu vert là. mais et toujours tey j'avais prévu d'aller en boîte bu Sénégal gagné damay dem damay génn mais. damaa stressé match bi yëpp. bilaay da ngaa stressé di ñaan yàlla naan yàlla nañ gagné. 17h la ma war a <laughs> ma alors yow ne. ko xanaa toog ci nen rek. <laughs> <laughs> sama xol bi jeex na tax Mamadou Ndiaye mais dara douzième gaynde jusqu'à ba léegi. bah oui ñoo ngi xaaraat beneen kaan yeneen qualification coupe du monde. yàlla baax amul problème ñoo ngi seen ginnaaw. ci kanam dañ koy xóotal d'ailleurs ah dinañ ko xóotal bu baax a baax Mamadou Ndiaye. ça va. da nga découragé yow tamit. découragé c'est pas grave. non mais c'est pas oh. grave c'est c'est le sport c'est pas la fin du monde c'est le sport. on n'a jamais pris la coupe aussi. oui oui oui mais bon c'était c'était une occasion et puis on avait de l'espoir. Mm, c'était une occasion on avait de l'espoir mais toujours comme ni nga ko waxee déception mais bon. Euh, sénégalais comme sénégalais yëpp ah ñu méttee surtout ñi nga xam dañu bëgg sport. dañu dañuy suivre bu baax football. Mm, mm, mm, euh, nekk na loo xamante ne vraiment tristesse la. bett nañu parce que mais bon encouragé bu baax équipe bi. parce que vraiment joué nañu def nañu li ñu mën boo gisee ñafe nañu bu baax wane nañ beneen xar kanamu Sénégal. mais toujours am na lu manqué quoi am na lu des. te xam naa ne toujours échec bi comme ni ma ko waxee échec bi daf ñu permettre tamit ñuy jàngaat rek. te xam ni am na yeneen na yeneen compétition yoo xam ñu ngi suñu kanam. voilà Malal Junior Diagne ak Père Laye Diaw ñu ngi jël seen temps xam naa auto bi ndànk lañ koy dawale le temps d'arriver mais bon bu Sénégal gagné woon c'est sûr que émission bi 21 heures lay commencé ñu ñu ñu toj kër gi bon même Alfie dafa découragé. ah mais <laughs> de nañ dëgg la parce que gars yi football nañu. Ah, quand même. mais bon après ils ont saigné ah. football nañu am ñaari bu doon football daal wala occasion mooy mhm. joxe mhm. ndam. Mhm. defe naa final sax lañ jëm. ah oui. mais ah bon après lu yàlla andi tamit Pape foog jàmm nangu ah. bah oui et puis la vie continue de. bala la vie elle continue. ah waaw Pape ça continue de. kii a ay dara. elle est triste aussi. alors triste hein. triste Pape Cheikh c'est normal parce que xam nga foo teg sa yaakaar rek. Euh, nga gëm ko jusqu'au bout. Mhm. bon pour wax comme ni ko Alfie waxee moom laay rejoindre euh, yàlla. Mhm. yàlla euh, chance la. Mhm. mais ils ont pas démérité. et puis yaa gën a triste parce que da nga defoon sujet boo xamante ni mu ngi jëm ci business autour euh, de de la. de la CAN Pape Cheikh parce que créé na business ci affaire bi ci. exactement créé na euh, emploi bu bëri. Mm. Euh, gars yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci fii amul woon job sax jóg nañ dugg ci dëkk bi lijjanti ay mayo lijjanti ay accessoires gars yi doon ko jënd bu baax a baax a baax donc mu doon def seen affaire ñoom ñëpp doon ñaan Sénégal jël ndam li. Mm-hmm. mais comme nuñ koy waxee rek yàlla jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam mais euh, pour souligner qu'ils ont pas démérité ah oui, je leur tire mon chapeau et que voilà Aliou Cissé c'est quelqu'un à, accompagner voilà donc ci kanam dinañu xool ce reportage même Alfie elle a préparé un sujet boo xamante ne ci lekku lekku sportif yi mais surtout footballeurs surtout bu ñu amee compétition yu mm. yu mel nii est-ce que seen euh, régime alimentaire day changer par mm-hmm. rapport ak tamit ndox bi ñuy naan parce que tout le mm-hmm. temps dañuy gis ni footballeur yi dañuy daw rek xëcc mm-hmm. benn bouteille naan donc euh, def nañ ci benn sujet boo xamante ni euh, ci kanam duñu ficcee rek Pape ku nekk di nga mën a comprendre voilà <laughs> xanaa nga lekk fruit rek ndax day neex ngay neex waaye banaan banaan oh exactement banaan banaan manger banaan banaan dafa baax c'est vrai que da nga nuroog banaan quand même yu 200 yi yi jóge Guinée mais mange mange beaucoup de bananes ah il faut manger beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup <laughs> bon ci kanam ñu xool sujet bi nga ci euh, préparé mon ami Ndiaye salaamaaleykum ñëpp ñi nga xamante ni ñoo fi mm-hmm. ni ko kii yooyu mais ñu ñëpp vous savez découragé nañu yu jaam ak si yàlla ak dogalam toi aussi ah bu leen découragé 2019 a ngi fi yàlla baax na nañu muñ rek boole nga ci ay eh, damay ragal 2019 Sénégal yi dem football ak seen bopp lu ñu yabalati kenn 2019 moom ñun jóg dem football yi. ba pare bu ne am ñu dugg. ba pare xam naa fa la ñuy mujjee ak suñu équipe bi. li ma ci jaaxal et puis et puis et puis ren dafa tombeek ñu découvrir Bouba xam-xam bi nga am ci wàllu football. y a tellement découverte cette année. yow ren guleet nga nga jóge ci musique bi dugg ci football bi. <laughs> c'est kon yaa gën a découragé. non man passionné la ku ne passionné de foot donc maa ngi lay nuyu di nuyu ni ñuy euh, ni ñuy seetaan bon c'est clair que tey moom déception bi moom je pense que loolu sénégalais yi gën a partagé moo xam ñi fi nekk ak ñi fi fi nekkul. mais bon on va encourager ñëpp. ah euh, d'abord féliciter joueurs yi. aussi ah. je pense qu'ils n'ont pas démérité. Mm. ak seen euh, seen staff. Mm. déception bu ñëwee nii nii nii doo mën a def analyse peut bu bu froide. objectif quelque part dañuy bàyyi ba demain incha allah. waaw parce que là il faut être prudent il faut être prudent mm. on va laisser le temps quand même digérer ko. Mm-hmm. et puis euh, on pense pense surtout aux joueurs. parce que ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci terrain bi. on pense mm-hmm. beaucoup aux joueurs parce que amoon nañu yaakaar ci ci affaire bi. Mm-hmm. maintenant fi may kii rek balaa ji ñëwaat mooy dominer n'est pas gagner. dëgg la et je pense que benn affaire ñun peut-être dañ ko fàtte le Sénégal n'a jamais rien gagné. et Bénin sans peut dëgg la et football dafa laaj humilité. Mbete Joseph Antoine Bell. voilà après dinañ ci gën a ñëw. waaw ah, mais loolu il faut ñu koy fàttali ñu et puis depuis depuis depuis très longtemps man waykat yi way mm. gaynde yi aussi tout le temps ndeysaan. Mm. ça fait longtemps ñu leen di. ah Pape Djibi Ba ba tey. Ah, Pape Djibi Ba Youssou Ndour démbali démbali génn ah. ah oui Pape Djibi Ba Youssou Ndour Omar Pène tout ça. après tout à l'heure avant match bi di jeex sur le coup damaa génne way boobu. Mm. ten ten ten ten. waaw boobu ndeysaan. waaw maintenant nag boo xaana koy denc ba ba 2019 au Cameroun comme waa mm. Cameroun ko garder ba 2019 dem Yaoundé peut-être jéem a def dara. on verra Mamadou Mouhamed Ndiaye. oui Pape ça maa ngi nii rek maa ngi sant bu baax a baax. <laughs> yaa ngi yaa ngi yaa ngi cool. waaw da nga découragé ou pas. non du tout du tout. Ah. ok ok pourquoi découragé parce que ñun ñëpp découragé ah. non man du ma découragé on est tous tristes. non pas moi. xam nga lu tax. Uh-huh. mbir moo gis ci àdduna ñetti étape la. demal. bokk ci nekk ci ak mujje ko hmm. maanaam bokk ci cinquante deux nations la woon hmm. ñu tànn ci seize Sénégal bokk na ci benn hmm. ndama ngokk nekk ci am na ñu éliminé premier tour Sénégal toogul premier tour bon mujje ko nag yàlla ne ma duñ ko mujje moo tax fii fii la mujj voilà kenn mais amul benn benn benn benn déception boo xam ne man am naa ko ci Pape gis nga football bu xasee ba toll ci tiiréw bi man sama yaakaar da cay da cay da cay da cay jeex xam nga lu tax booba doonatul mën football doonatul système bu baax dëgg la doonatul euh, stratégie bu dox chance la dëgg la c'est-à-dire football chance da ciy bokk booy seet sax bari na pourcentage bi mu ci occupé daje nañoo Cameroun mu def ñu ko. Mhm. dajawaat nañ ak moom mu def ñu ko. Mhm. peut-être bu ñu dajawaatee ak moom. dinañ ko def te naa la fi benn affaire nee naa la footballu Sénégal dafa toll ci reconstruction. Mhm. man fi ñu egg nii. dañ doon wax ne oui suñu objectif mooy jàll premier tour. fi ñu egg nii man betteel laa ci am. donc. léegi nag xoolal booy teew ci kan bi. Mhm. bari na ci ñoo xam ne bii mooy seen seen seen seen seen. seen seen première participation et puis footballeur buy football ba deretam génn deseelatu la dara. ils ont dëgg la. ñaata ñaata joueur ci effectif bi lañu lañu lañu lañu bande. wallaay Cheikhou Kouyaté. wallaay sama waa ji dañu ko musóor bi match bi yëpp. Cheikhou Kouyaté. man mu jigi dama takk sama bopp pour def soutien. cela veut dire dem nañu ba jeex. xam nga balaa takkoo. moom nga takkoo wallaay. je te jure hein, pour soutien quoi c'est-à-dire supporter kenn xamul xamuloo football peut-être euh, boo ko mënoon nekk ci terrain bi comme moom mais ñun on est supporter dañu nekk douzième gaynde jusqu'au bout des ongles xam ne mbiru yàlla dafa garaaw hmm. ki ñëpp ki ñëpp yi gën a teg bët bu demee ba ci série bi mooy moom mooy mooy mooy këpp yàlwaan gi xoolal Sadio Mané li mu football ci match bi yéeg na wàcc na marqué na dugal na xaw ma dugal na duut na lu ne def na ko mais xoolal fa mu xoolal bal ba xoolal bal ba. oh. mais xëy na looloo gënoon ci ñun. mu jig ma naa ko Sadio ana bal ba. <laughs> donc sur la coup da ngay meer mais après boo réfléchir rek di nga xam ni voilà football la football rek la quoi football rek la quoi 2019 a ngi ñëw ah, ah. coupe du monde baa ngi ñëw mm, mm. am déet mm, bu ñu demoon ba final yëf yi këppoo fa ci lay gën a métti dëgg kon bi ngi noonu nañ xool ci Tunisie tey mm-hmm. niñ ko éliminé dëgg ñun qualification yi parcours bi gën a génial ñoo ko def ah. dañoo génn première ci suñu poule ci ci coupe d' afrique bi mhm. ah quart de finale la yàlla waxoon fa la ñuy toogee mhm. yàlla bind na ko avant ñuy jël équipe bi di ko jox Aliou Cissé mhm. kon kay jeex na demoon nga demoon nga kër ñoom Cheikhou Kouyaté nu ko bu baax demoon ci choisir ci capitaine bi demoon ci këram seetaan ak moom waxtaan ak moom xool waxtaan ak seen famille sax surtout xool nan la ñuy dundee ñoom match bi bu mm. élément bi pare mën nañ ko seetaan nañ ko xool ñu xool waa

waaw moom Cheikhou Kouyaté moom joué na bu baax daal suñuy mag la moom daal su ñëwee daal ñëpp xaali xaali xaali jox ma si xaalis njëkkate moo. doon na kay ndax quand je vois mon nationale ki na gagne pas le quart de finale franchement sa gàkk. maa ngi tudd Matar Ndiaye. alors gis nga euh, vraiment yaakaar bu tas la. vraiment yaakaar bu tas la franchement parler quoi yaakaar bu tas la moom vraiment amoon nañ euh, yaakaar Sénégal yëpp amoon nañu yaakaar ni kaan bi moom vraiment suñu kan la mais vraiment c' doon ko waar quoi doon na waar trop. mu ngi est-ce que yow mais vraiment euh, joueurs yi football nañ lépp lu ñu mën si ngoon def nañ ko mais lenn rek mooy erreur mooy Sadio Mané il n'est pas concentré quoi franchement parler. avant de tirer il n'est pas concentré quoi franchement parler c'est ça quoi ok merci beaucoup ok. voilà Mamadou Ndiaye donc qui a suivi ak équipe am euh, match bi foofu kër ñoom euh, Cheikhou euh, Kouyaté. Mm-hmm. c'est c'est découragé quoi. waaw waaw c'est découragé comme ni ko déception lay nekk mais xam nga booy seetaan surtout booy seetaan football da ngay am am bëgg sa équipe gagné nekk ci loo xam ne da nga koy gëm surtout dajaloo fenn surtout nekk mu nekk mu leer na la fii seen kër la fii la Cheikh Kouyaté dëkk nekk capitaine équipe nationale. Mm. <coughs> sànq euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye mi ngi doon wax léegi dañoo deretam bi moom dafa joxe match bi yëpp gis nga ko bari na comme ñëw yeneen joueurs yi ah, dañoo joxe dañoo joxe li ñu am li ñuy li ñu am yëpp mais dem ba tiro bi nga xamante ni chance lañ koy wax. Mm. xam naa ni Père Ladio bu ñëw expliqué ñu ci loolu chance la da ngay ñëw tiré keneen ñëw tiré keneen ñëw tiré mu tombé ci Sadio Mané mu mu mu rate sa mm. euh, Sadio Mané nga xamante ni bokk ci trois meilleurs joueurs africains yi d'ailleurs euh, moo jël moo kii di Mahrez moo ko jiitu ak Aubameyang euh, mm-hmm. moom nga xamante ni bokk na ci ñi nga xam ne ki ñu gën a teg bët la yaakaaroon nañ ni kenn ku doo yaakaar ni moom moo war a mën a raté man bi muy dóor dama am gëm-gëm ni. Ah Sadio Mané te déjà ci kan bi dafa dugal. suñu mm. premier but ci kan bi moo ko dugal moom moo. il a bien joué moom Sadio Mané te penalty la dugal eh, voilà déception la ñi masawu sénégalais yëpp rek di wax ni ñu ñëwaat liggéeyaat liggéeyaat kan Sénégal Sénégal euh, booy xool Sénégal Tunisie on a eu beaucoup de chance ci ci beaucoup d'occasions je pense que chance bi ñu amoon match boobu tey la amul tey parce que booy xool euh, Tunisie Sénégal suñu góol jàmbaar la on a eu tellement de ballons yi dal ci poto bi yi mu génnee ko ak benn loxo bon forcément daam benn moment boo xam ne nag chance moom da nga koy woo waaye du la wuyu si. Mhm. donc c' est mhm. quelque part. voilà je pense qu' on va revenir ci image wu euh, déception wu Sadio Mané. Euh, ni kenn eh, inconsolable moom ko wax nañ ne bi mu ratee mu wane ko métit bi ak esprit de groupe bi am ci affaire kii bi comme sénégalais yëpp ah ni ko ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci fii doon ko dundee moom noonu la ko doon moom mi nga xam ne moo ratee penalty bu bu image yi pare mën nañ mën nañ ko xool. ayca on diffuse en même temps. donc cela, un tir, on peut dire, arrêté par Ondoa euh, plutôt que non réussi. a bien frappé dans le cadre, mais... Il était parti, il était qui est inconsolable, mais justement, il a, donné le meilleur de lui-même. Et a, la force de Cissé. Il a, réussi sa deuxième. De Aliou Cissé, voilà, Maya Silman, le directeur technique. Regardez la rage de Aliou Cissé. C'est ça le sport. Il faut être courageux, ce n'est pas la fin du monde. nekk na nekk na lu metti lu lu triste lu ñu. moom lu waay ñàkk di ko jooy rek ñor na ko. waay dëgg la. lu waay ñàkk di ko jooy rek. ñor na il a respecté son penalty il a raté la vie continue. voilà alors je pense que mën nañu accueillir léegi père Laye Diaw ak Malal Junior Diagne Malal Sigir. <laughs> père ñëw leen merci d'être là. maaleykum salaam. tu as vu gis nga gis nga gis nga accueil bi gëj nga ko am fii ah. Donc ça c'est que, non, c'est pour vous deux, pour toi en même temps parce que tu nous as tellement fait plaisir ci ci ci ci Coupe d'Afrique bi ren donc il fallait que il fallait que ñu jógee nii ah papa Diaw Diaw bienvenue kontaan nañu demal ci digg bi waaw asseyez-vous là toogee leen nii voilà ça va kontaan nañu tey euh, ci seen teewaay ci euh, quartier général mu noonu ngeen bañ a ñëw ah, ah, dé déception ak découragement. quand même waaw quand même souvent dañu koy euh, dañu koy euh, dañu koy fàtte dañu koy fàtte euh, per ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci sa teewaay ci quartier général fan yëpp noppalu noppali ku ndax Coupe d'Afrique bi defe naa tey match suñu gaynde yi dugg na ñëwoon démb. waaw dugg na ñëwoon démb comme yi ngi fi gisoon quand bon ñëpp la métti. oui métti na trop même ñun bu ñu gagné woon ci tiro bi yi métti na. Mhm. parce que mënoon nañ fa bañ a mhm. li ñu fi indi ci ñun la li ñu yóbbu ba fii. Mhm. ci ñun la. parce que plan Cameroun moo doon résister au Sénégal ils ont résisté. ku résister souffrir. souffrir nañu presque tout le match. ba dem tiro bi gañee xaw na ma rappeler tuuti. Euh, coupe d'Europe bi Marseille gagné woon bi Marseille pertoon ak Partizan de Belgrade mhm. bi Marseille pertoon Partizan dañ ni Marseille moo ñu mën mais dañ koy yóbbu tir au parce que ñoom seen championnat amul match nul mhm. en de nul dañuy dem tir au but mhm. yóbbu Marseille tir au but ko mooy si tu mooy jooyu Basile Boli yu métti Basile Boli xale xamuñu ko waaw Basile Boli après lañ ko gagné gis nga ñun suñu dafa am ko ma laaj léegi euh, ni ma lay lañ moon ñuy bloqué ma ni que mënuñu souffrir gis nga ni Cameroun yi souffrir ba kenn gañewu leen dañu souffrir ba kenn gañewu leen coup d'envoi ñu daw làqu seen buntu kër jéemu ñu sax génn. ñun ceebu jën la ñuy lekk ñoom ñàmbeeg too. waaw euh, peut-être. peut-être ñooñu ëpp aussi seen réew aussi moo ëpp ndox loolu yëpp ñu ngi ci. ci bind bi bind bi ci la. Mm-hmm. waaw ci seen bind mën nañu résister lu. souffrir lu yàgg. ils ont souffert. Sénégal taf leen seen buntukaay Sénégal sax tafu leen ñoom ñoo daw laax ju foofu. Hmm. parce que euh, match bi ñaar la woon ku def sa match moroom perte ko. dëgg la ñaar la moon hmm. match bi Sénégal yi war def ak match bi Cameroun yi war def. Cameroun def nañu match bi ñu war def. Hmm. match bi ñu bi ñu def te mu war leen ñun ñoo mënul boobu fekk leen fa. ñun ñoo mënul boobu. match bi Cameroun def négatif rigoureux coup franc yi bare dalante bi bare Sénégal dès la première mi-temps dominé leen ci possession 63 14. 63 14. dès la première mi-temps ñu ngi amee ballon bi mais duñ ko jëriñoo ñoo ñu dàq souffrir alors muy lan euh, ñoom dans la difficulté surmontée la ñu yóbboo au tir ñun on du dans la difficulté surmontée éviter. dem ci robinet c'est ce qu'on n'a pas su faire mënuñu euh, mënuñu euh, euh, def li ñuy def mënuñu ko def ci lu metti hmm, xamuñu mettit xamuñu mettit d'accord alors que match bi comme waa ji mi ngi souffrir pour nga bañ ko gañee bala nga koy gagner souffrir quand même on n'a pas suñu bopp toj na suñu bët toj na wallaay mais on pa pas passé ci yoo xam ni seen i ay fe du suñu joueur ñoo def lu tax bopp bi toj wala bët bi toj camerounais yi ñoo taf ñoo def lu tax bopp sénégalais toj ak bëtu sénégalais ñun defuñu lu tax bëtu camerounais toj ak bopp camerounais pour jàll. ce n'est pas notre style. dëgg la de. ce n'est pas mhm. dafa mel ne que ñun bëri simple la ñu mën ñoom bari door la ñuy def moo compliqué affaire bi. xanaa ñu soppi suñuy mbappat kon léegi. non yaa ni woon football ci réew na club ya baax. waaw gis nga léegi la gën baax <laughs> Pape euh. xam nga léegi la gën baax. gisoo fa ñuy jëlee joueur. Mhm. football ci réew bu club bi baaxee équipe nationale ba dëgër. dëgg la benn waaye ni ma mais yow yow ba nga ko waxee ba Umar Pène men ko way ko léegi léegi ça a ba ma ko non tey la gën dëgër. parce que bu njëkk d'où venait non sélectionné Gorée Gia Linguère Jaraaf. Jaraaf. Jeanne d'Arc Casa Sport. léegi xam nga fu ñuy jógee. Mhm. dans les championnats d'Europe léegi nos sélectionnés son ou partenaire ou adversaires. de Cristiano Ronaldo et de Laurent Messi. ci ban au Sénégal. Mhm. am na kuy jouer ak Laurent Messi ak euh, Cristiano Ronaldo dans le même championnat. Mhm. am na waaw ñu ngi rencontrer Messi kon fi Sénégal di jëlee sélection am léegi la gën baax. bu jëkk bu jëkk yenn club lañ daan wax. su baaxee équipe nationale bi dëgër Gorée Linguère. Mm-hmm. léegi xaw nga fan la mm-hmm. Liverpool. Mm-hmm. championnat d'Espagne. championnat d'Angleterre. on a une équipe entière championnat d'Angleterre. ah quand même. bi nekk alors. doo ko gis soo ko gisoon gagné xam nga loolu moo ci dramatique. li tax li tax gagné woo kenn du ko gis. waa ji gagné dafay làmbaatu it gis nga loolu suñ ko gisoon. dootuñu kon du ñu ñàkk mais doo ko gis da ngay avancer jusqu'au moment où tu te rends compte que ji da nga naan kii tant que souffrir ma du ma ko gagné. tey ak Cameroun looloo manqué woon ñoo gën a souffrir ñoo gën a sol bi match bi jeexee soulagé nañu. parce que dañu dem jëli seen victoire dans la douleur. ils ont souffert. ñun on ne sait pas souffrir Pape Cheikh. voilà voilà mais onze yi départ tey gisoo ci koo xam ne par exemple match bi du woon match am. départ. mënuloo ko wax. mënuloo ko wax parce que xam nga damay dégg damay dégg léeg-léeg sénégalais yi di wax lu ma naqati lu ma naqati ba mënuloo ci dara xam nga lan. Hmm. déggloo ñu naan Sénégal contre euh, Algérie équipe B moo joué ban équipe B ban équipe B tu avec d'ici avec 23 joueurs nous sommes 14 millions de Sénégalais 23 nga tànn leen. léeg ma dégg terme remplaçant ma ni ça n'existe pas ce sont des pendants mm-hmm. on est 23 11 ay joué ñu joué wul ils valent ce qui aussi l'exemple bi ma lay jox ci cas bu mel nii def nañu huitième de finale coupe du monde Salif Diao ak fatiga bu leen jàmm rek dalee kenn ñemewul jouer sans ñoom mm-hmm. yow ñemoon nga présenter équipe bu Sénégal mm-hmm. buy def huitième de finale coupe du monde sans Salif Diao ak Fadiga ñeme ko. lu tax nekkuñ fa cumul de carton waruñu jouer. ils sont sous le coup de la sanction waruñu jouer. Bruno indi Pape Thiaw ak Amdi. ñu def ngandu match. Mmh. Amdi non dugalul. c'était Henri les ñu def ngandu match. Sénégal passé. au match qui suit ñu dem quart de finale coupe du monde. Mmh. ñooñu defoon ngandu match à la place des supposés titulaires. dont ils sont les ñu ñu génneelewaat leen ñoom ñu defoon intérim bi dugalaat ñi fi nekkul woon. y en a qui ont reproché ce soir-là à Bruno de n'avoir pas reconduit équipe bi gagné Suède. parce que équipe bu mag am na résultat yu mag yoo xam ni bu ci jógee reconduire que bu ci laal dara. Mhm. en d'autres termes keroog dañ ni Fadiga ak Salif Diao waruñu woon door. et c'est logique. Mhm. waruñu woon door. Mhm. parce que bi équipe bi def résultat bi nekkuñu fi. continuer ak ñi ko defoon ci boobu dynamique alors quand tu arrives à te passer de Salif Diao et de Fadiga mais cela veut dire que ñi jël place bi du ñu cuuc du ñu cuune du ñu cuune donc ils attendent leur heure un jour le Brésil a connu Amarildo qui a gagné la coupe du monde 62 su Pelé blessé wul du dugg. Malal xam nga ko. su Pelé blessé wul su Pelé blessé wul du dugg il a fallu que Pelé blessé pour que waa ji dugg bi mu duggee brésilien yi buggatuñu Pelé ñëw. il gagne la coupe du monde bi muy ñëw ci coupe du monde ba kenn xamu ko. ce sont des choses qui arrivent. kon su ma déggee 23 ñuy joué contre Algérie ñu ne équipe. am na sax ñu ne équipe B. am na sax ñu ne équipe B. may lire may lire léeg-léeg ci journée yi. de sénégalais yoo xam ne ñu ngi gaañ équipe bi te ko léeg-léeg ma liir séeréer siireur. léeg-léeg nga liir siireur. les siireurs du banc. on assuré am na beneen am na beneen terme. les les si xam nga luy siireur du banc. mooy gis nañ ñu toog ci banc bi banc bi du salte. xaw ma lu ñaaw gis nañ ñu ci banc bi ñu ngi bougé. <laughs> ñu lañ koy xool ma xam yooyu. am na benn journal. si xam nga ban. Mhm. si ak coiffeur. les coiffeurs. Oh. les coiffeurs ont assuré les sirènes ont assuré. voilà waaw pas bon c'est ah, pas bon ils sont les pendants de ceux qui jouent de ceux qui jouent je t'ai donné un jour je t'ai donné l'exemple de Salif Diao et de Fadiga mm-hmm. toog nañu ci biir avion di nekk El Hadj Diouf pour dem Monrovia mm-hmm. mu tardé ñuy nekk mu tardé avion bi nekk sur piste tàngaay bi ñu bëgg rey gis Stéphane énervé daal di euh, euh, euh, pilote bi et eh, tëj leen ñu dem waa ji di mu ni ko tëjal ñu dem ñuy tëj ñu ne ñu eh, El Hadj ne di ñëw El Hadj Diouf ne di ñëw nekk leen ko mu di tëjal ñu dem. Mhm. ñu dem sans lui gagné 3-0 sans lui gagné 3-0. Mhm. El Hadj Diouf bu fa nekkee kenn ñemewul jouer sans lui. Mhm. ku jouer à sa place. ci jouer à sa place bu El Hadj ñëwoon du jouer. kon boo xasee ba indi 23 ils se valent tous. bah oui bah oui bah oui. ils se c'est une équipe. Bruno l'a fait. ce que Aliou a fait contre l'Algérie, Bruno l'a fait mm. contre mmh. la Tunisie en 2002 à Caille. Oui, on bat euh, euh, l'Égypte, euh, on bat euh, euh, euh, la Zambie, on se qualifie. Tunisie, Tunisie non, on bat, on, on bat l'Égypte et la Zambie. Mmh. Nous troisième match, on se qualifie. Bruno sort tout le monde. Il met ceux qui n'avaient pas encore joué. on fait 0-0 avec la Tunisie. Omar Diallo fait une prouesse, arrête un penalty. Mm -hmm. Et on se retrouve à l'arrivée en finale de Coupe d'Afrique. Ils se valent tous. Mm -hmm. waaw ils se valent tous li tax nag ba léegi gagné wuñu xamuñu ko. c'est ça la question. voilà Malal je pense que euh, jot na aussi pour nga wax. Euh, parce que li ñu wax sànq. benn waar xam nga xam nga tamit loolu mooy football aussi ah. des fois c'est une science inexacte parce que boo demee équipe nga am contre contre 17 pendant que vingt minutes. Cameroun def nañu 40 fautes. nous mm-hmm. on en a fait ak ay cartons jeex mais mënuloo dugal. Mm-hmm. d'habitude boo foogoon 15 minutes le match était plié. tey boo mm-hmm. foogoon 15 bi ñu nekkoon plus ñu doon avancé plus Cameroun da doon màgg parce que objectif am mooy yóbbu ñu à l'usure. xam nga di nga bëri ak nit mu ñu dama la yóbbu ba mu des 20 ans. ma daan la. tey Cameroun daf def ñu dékku mu ñu di dal ci kawam. muy ay pour di taxale di taxale ba yóbbu ñu parce que xamoon nañu ni foofu peut-être ils mooy le gardien qu'ils avaient mooy Ondoa parce que Ondoa bu dul benn bu dul ñaar sénégalais xañ leen ko bu dul benn bu dul ñaar sénégalais nañu mu xañ leen ko donc xamoon nañu ni derrière amoon nañu rempart bu baax mooy Ondoa et ils ont misé sur ça dañuy dékk Sénégal 120 minutes bu ñu demee sédd penalty lu mu gàtt gàtt gàtt Ondoa dina jàpp benn et ça s'est vérifié jàpp ne benn bi mu jàpp moo baaxul on est éliminé. mais neexoon na quand sa cest bu la nit yi dee déglu ci euh, rajo bi tu fait fais depuis toujours ren aussi ñu bëri ñu amul woon ñu gëmul woon engouement bi euh, participation au Sénégal ci ci CAN bi euh, dañu ko dafa am loo yokk ci douzième gaynde bi. wa mais xam nga xam nga position bi ñuy toogee itam nekk position commentateur bu nekkee équipe ak équipe mën nañu wax ne dañuy neutre parce que. équipe ak équipe ñooy football on fait notre boulot. dañuy mm. wax li xew ñu dem. Mm-hmm. mais bu dee dañuy tëgg équipe nationale teg drapeau réew mi on est engagé on peut nous repousser tout ce que les gens veulent. Mm-hmm. mais bu dee équipe nationale mooy football nun nooy jiitu ci xeex bi. Mm-hmm. te bu ñuy dem ci xeex bi dañuy woo nit ñëpp ñu gunge ñu. parce que tëggunu Youssou Ndour tëggunu co Thione Seck wala Wally Ballago ca ca Gabon. dañuy teg pincer tout frapper les balles. dëgg la kon bu ñu tëggee sa am lu am luy yëngu si sa biir. dëgg la bul jooy nag donc su ñuy wax non du ma jooy. su ñuy wax dañuy fexe aussi ba ñi ñuy déglu. ñu leen di transmettre la fibre patriotique. Mhm. courant la bu ñuy bu ñuy war di maasante jàppante loxo mu ni maas ñu ñëpp. ba 14 millions ku ci nekk sentir ni mi ngi daw sa yaram. Mhm. su boobaa ci la ñuy am ndam. Mhm. mais boo gisee ñuy football ñii di xeex ñii di ñaan équipe bi ñuy gañe ñu loolu mooy wane ni bëgg-bëgg bi des na doon benn. te pour nga gañe Coupe d'Afrique que nit ñi nga yóbbu. doon benn ñi leen yebal itam doon bañ ne seen ginnaaw. Mhm. te loolu dafa des ci réew mi. Mhm. waaw des na ci réew mi te te ay at ba tey euh, père. Mhm. y' toujours ah, y' a toujours eu ça euh, bu équipe nationale bu Sénégal day dem ñi nañ ci jàpp ñee di xalab. Euh. te ñun ñëpp ñu nekk benn nation. waaw c'est c'est loolu Pape Cheikh gis naa ku ni woon Caire 86. Caire 86. heureusement gagné leen. guerre 86 ñu ne heureusement gagné wu leen. heureusement gagné leen. parce que bu Sénégal gagné ñoom politiquement ils étaient morts. ah. heureusement gagné leen. Mhm. su ngeen gagné woon politiquement on est mort. Mhm. bon yaakaar naa ni xëy na nit ci àgg ba foofu xëy na li ñu gagné rek moo tax mu wax loolu. Mhm. gëmuma nit mën na dem bay euh, def lu war tax réewam ñàkk. dëgg la. bon unanimité kenn du ko def. Mhm. unanimité kenn du ko def. Mhm. léeg-léeg daa gis ñu nga xam ne sax bu ñu fa nekkul du ñu bëgg mu dox. Mhm. parce que nekkuñu fa. surtout ñi fa nekkoon jóge fa. pour sa oto paane nga dem ci mécanicien bu la dépanné wul nga dem ci keneen. moom mi la mënul dépanné du souhaité kay dépanné la. tu fais avec da ngay def ak moom. te xam nga euh, bii yaakaaroon naa ni. waaw parce que unanimement observateur neutre yëpp dañ ni. le Sénégal est au-dessus du lot mais dans la manière c'était seulement dans la manière jotewul dara ak réalisme bi on a manqué de réalisme parce que tey euh, Cameroun dafa wane li ñu manqué mooy lan euh, dafay am bis yu nga xame ni euh, souffrir moo lay jàlle xeex moo lay jàlle loolu lañ manqué woon loolu lañu moo tax jàlluñu parce que Cameroun pan et puis seen plan ils ont remarqué que Sénégal match yi mu gagné daf ko teel gagné. début bi leen pendant 25 minutes. match yi mu gagné daf ko teel gagné. contre Tunisie 30 minutes 2-0. contre Zimbabwe 13 minutes 2-0. ñu ni bon Sénégal da nga leen di teel dékku pendant qu'ils sont frais balaa suñu suñu xasee ba liquéfié duñu dugal. buñ demee ba doole ji jeex duñ dugal. gisoo suñu équipe plus ñuy avancé plus ngay sentir muy yolam ca début ba ni ñu ni ñu ni équipe bi incisive ca début ba ñaw nga daan bii baa ngay ñëw bii baa baa ngay ñëw après ngay sentir mu commencé di yolam ñun ñi xam suñu bopp xam nañ ni loolu door na boobu instant man tiit naa ba fàttee fàtte malal mi ci sama wet ci liggéey bi tiit naa ba fàttee ko parce que li ma gën a ragal laay gis ni mi ngay ñëw te mënuloo ci dara mm-hmm. xam nga lu metti nga bokk mm-hmm. ci dara nga gis muy yàqu te mënoo ci dara wallaahi wallaahi wallaahi ci suuf ça te fait mal. heureusement man lu metti du ma jooyloo. <laughs> voilà tey tey tey sénégalais yu bëri jooy nañu on va en prendre juste quelques ci euh, euh, téléphone bi euh, bu ko defee ngeen am possibilité waxtaan tuuti ak Père Laye Diaw loolu bëgg ngeen ko ci jamono yi surtout waxtaan itam ak Malal Junior Diagne da ngeen koy bëgg ci jamono yi mais defe naa tey même bu fekkee équipe bi toog na. dañuy continuer nekk nekk nekk ñu confiant. ci suñu équipe yi. ah bien sûr euh, Coupe d'Afrique des Nations moo metti Pape Cheikh. xam nga Allemagne mooy championne du monde. je disais amalal gis nga Coupe d'Afrique bu bu bu Allemagne ñëwoon. mi championne du monde. équipe championne du monde du woon gagné Coupe d'Afrique des Nations. bu Allemagne ñëwoon du ko gagné. seetal ñi nekk en Europe di flambé Aubameyang daw Ballon d'Or ren mu finaal ko. ak Mahrez ak Sadio Mané. mais ñoom ñëpp velléitaire ñëpp. Aubameyang ñibbi na. Mahrez ñibbi na. Sadio Mané de Liverpool. est bien meilleur que celui du Sénégal. loolu. waaw contexte bi xam nga wax naa la tout à l'heure ni la équipe championne du monde bu ñëwoon du gagné bi. waaw équipe championne du monde bu ñëwoon. Mm-hmm. jouer en Afrique jafe na trop dama lay jox benn exemple da ngay am gan bu jógee Europe. xam nga ñun ñu ngi ci hiver boo amoon gan gu jógee Europe su ngeen àndee di dem ville mu sol sous-vêtement ndax dafay ndax ba tey day tàng yow da nga yaa ngi hiver tu t'habilles chaud moom mu tàng ba sol sous-vêtement léeg-léeg day am envie ci biir oto bi def yar mu nen bu demee ba sànn nga lay soog a sol sous-vêtement pour wàcc mais suñu xale yi vivre foofu entre 8 et 10 degrés tey jii euh, barki dem ba paas bi ma naan Marseille il faisait moins 4. moins 4 degrés. nga indi waa ji sànni ko ci 27 degrés. doo ko am moo tax da nga koy jig rek ay éclair rek ngay gis ay éclair rek léeg-léeg nga gis que par aku fàtte ko gisaat ko par aku fàtte ko Coupe d'Afrique des Nations suñ ko doon joué en Europe coupe européen yaa koy gagné. footballeur footballeur yi. Euh, waaw ñoom la plupart dañuy dañuy exceller ci euh, championnat Europe yi. waaw lu tax ñun li ñuy dal duñ leen du leen dal. seen lekk seen seen lekk lekk yi lekk xale tamit wax na ko ah. ñoom ñu ngi sont au Gabon Gabon ak Cameroun comme dakaar Dakar dakaar ak euh, Banjul. oui ah, mais mais dafa wax léegi boo jógee ba jëlee leen ci sedd bi indi leen ci conditions yi pour ñuy football endurance bi muy wax. Hmm. lu tax ñun mu ñuy dal ñuy wa ñuy wàññeeku plus. Euh, temps bi di dem te ñoom du leen daal te ñoom itam ñuy joué ci équipe yu mag yi. xam nga pourquoi. Mhm. léegi boo tegoon Sénégal ak Cameroun. ñu commencé individuel. nga jël benn sénégalais mu bëri benn camerounais gis nga seen bit avant match ah laa wax. Mhm. nga jël benn sénégalais mu bëri léegi benn camerounais. ñu continuer li mhm. sénégalais yi di daanu mooy ëpp. dëgg la. si ñu bind la. ci suñu bind la. mais doyen sànq wax nga ko ne nga Sadio bi ñuy gis Liverpool moo gën a taqe bi bi bi football Sénégal. waaw ñu bëri dañu gis ne bi Sadio tegee penalty bi pour ñoom warul woon a dóor. warul woon dóor. parce que mm-hmm. grand joueur yi léeg-léeg dañuy raté. warul woon dóor dal na El Hadji Diouf. dal na Aliou Cissé Aliou Cissé dal na aussi euh, Messi ñu bari dañ ne woon warul woon a dóor warul woon dóor ñooñu sax li xëy na peut-être bu leen di dal dafay nekk su le coup dal xam nga ñan ñooy perdre tir au <laughs> xam nga tir au but xam nga ci dans le match xam nga ban équipe ba koy perdre bi waroon gagné dans le match ah kon Sénégal moo waroon gagné tey moo waroon gagné waaw occasion yu bëri équipe bi war gagné dans le match gañewul mooy dem tir au but léeg-léeg c'est sous le coup de la déception tu es déçu d'en être arrivé là parce que war nga ko gagné mm-hmm. ngay dem ci tir au bi la mort dans l'âme mm-hmm. tànk yi du dëgër mm-hmm. tu es déçu parce que ñun ñëpp bëggoon nañu gagné avant ñuy dem tir au ñun ñëpp bëggoon nañu ko gagné mais 2002 c'était la même chose on aurait pu gagner avant l'épreuve du tir au but match bi tas gars yi si mi seen dànd quand j'ai dit mais yow sa groupe bi dafa hétéroclite yi mu ni ma aw ma gars ñi dañ daw Aliou Cissé qui était capitaine moo taxaw. pour tirer ñi ci des daf leen doon désigner. beneen moo du épreuve la du le geste n'est pas technique léeg-léeg neer la. moo tax am nañu ni il est préférable ci épreuve de tir au nga am défenseur ci bal yi. tu sais pourquoi. défenseurs yi de seen neer gën a dëgër. ñoom ñëpp dugal ah ils ont défenseurs yi de seen neer fii attaquant di am frousse défenseur du ko fa am. défenseurs yi ñoo gën a dëgër nerveusement. Hmm. ñooy taxaw ñooy faral di gagneur yi léegi ngi léegi léeg nga gis benn défenseur bu ni gars yi gars yi dugal leen benn but su ngeen dugalee benn but on parce que kenn du fi jaar kenn du fi jaar c'est clair. waaw yi dañuy wax aussi ne Sénégal amuñu avant centre bu baax. gis nga loolu si si si hmm. am nañu ay avant centre yu baax. am nañu am nañu ay avant centre parce que dugal nga football nga ñetti match nga dugal 6 buts. donte sax ni benn benn benn défenseur mooy si dugal mais attaquant yi nga yóbbu. ngi mais attaquant de pointe laa wax. attaquant de pointe ça dépend parce que xam nga tam entraîneur bi moom mooy dund ak xale yi. Mm-hmm. moom mooy xam lu muy def moom mooy xam ñi mu wóolu xam nga tam. Mm-hmm. tey jii Pape Cheikh buy ngay wax yow tànnal chroniqueur pour dem quartier général ñi mu wóolu lay tànn Aliou ñi mu wóolu lay démarrer loo. ñi ma am ñoom yaakaar bañ mu ne bu ma demee bu mu dëgër mën naa indi loolu lay def. Mm-hmm. boo xoolee chaque match bu dëgëree day génne Mame Birame indi Moussa lu ko doon tee mu benn ko parce que yaakaar bu mu am wala li mu bëgg am ci attaquant ci membre la koy gis mooy xeex bi. waaw ah, ci li mu yaakaar rek quoi. Mhm. bu xeexee ba sonn mu génnee indi koo xam ne techniquement mu mën a def affaire. Mhm. voilà te tey sa Moussa Sow am na ko ñaari waaye góol ba. Mhm. Ondowa. Ondowa per ah. man li ma bëggoon laajte moo di. Ah. tey gisoo ni Hugo Bross stratégie stratégie moo gën a marché bon pas ci au delà de tiro bi mais ci biir marché bi ñëw yaa ngi koy wax sànq au début moo tax moo

gis nga kiy défendre mën na nekk ci défense bi 10 minutes du laal bal te mi ngi défendre. mi ngi défendre. 10 minutes du laal bal. jàppee te kat mi ngi défendre. Mhm. naka la Papa Amadou euh, nga soxla. damay taxaw foo xam ne doo ko paas. voilà des fois du ko am man du ma ko am. des fois et le match avance. des fois des fois père doo gis xale yi football sa xel dem ci ku mel ni par exemple euh, Bokandé. si. nga ni cay bu doon démb kii nii. gis nga ci ci ci jamono yi. waaw des fois sa xel du dem ci moom. si dana dem ci anciens yi. Mhm. xam nga tout à l'heure papa Amadou a parlé. Mhm. a presque dit que équipe bu Sénégal il semble dire que équipe bu Sénégal amul avant centre. Mhm. bu mel comme Diego Costa bu mel comme. amul avant centre Suarez waaw. waaw mais gis nga avant centre boobu. Euh, bale yi mu soxla pour dugal ko yan na ko am. gisoo ñu bare dañu comp dañu def comparaison wu euh, Mame Biram Diouf ak Moussa Sow bokkuñu. bu ñu bokkoon orchestre du ñu bokk du ñu bokk bu ñu bokkoon orchestre du ñu bokk instrument. bokkuñu. te et le travail le travail que fait Maam Biram c'est c'est dafa c'est difficile parce que kenn du ko gis. xam nga euh, Aliou Cissé son profil il aime les batailleurs. Maam Biram est très batailleur. te li dul feeñ gis nga Maam Biram xam nga ñan lay xeexal. bu ameewul ballon bi défense adverse bi war yi indi ballon bi ñoom lay xeexal. empêcher relance bi. empêcher relance bi. Mm. il fait un excellent travail sans ballon. Mm. ci côté boobu euh, Moussa Sow il commence à jouer bu entrer en contact. avec le ballon. Mm-hmm. benn waaye dafa poser benn question ni ma lay Baba Touré ak Louis Camara ku daax football. Mm-hmm. Fadiga. Louis Camara ak Baba Touré ku daax football. ma ne ko xam nga fu ma leen di càmbari en défense. ma ne allons en défense. parce que booy tester joueur foofu nga koy tester. ma ne ko defar nga sa équipe tu manques d'un latéral gauche comme ñoom ñëpp gaucher lañu. ñoom ñëpp gaucher lañu. gaucher bu nga xam ne bu ñuy dox sax nga xam ne kii gaucher lañu. alors man ma ne ko tu manques d'un arrière gauche. Fadiga rek nga mën jouer mu ne ma pourquoi ma ne à courir derrière l'adversaire mm-hmm. di àndandoog moom di daanu mm-hmm. di jógandoog moom mm-hmm. di tëbandoo ak moom je ne sais ndax yéen a ngi rappelé benn Sénégal Danemark ci coupe du monde bi moom daanuwaa bi concante euh, ah seen seen yi rek la foofu ñu nekk di xeex concante bi di wut place bu idéal mooy indi loolu alors comme Fadiga mën na fa jouer cela veut dire que des trois c'est le plus complet alors point bi ngay wax ni dafa am solo léegi nii dama la won image bu yàgg ci Euh, euh, Bokandé sama xel dem ci ku mel ni Roger Mendy. alors Roger Mendy aussi moo Bokandé boo xoolee xale yi ma waxaat la ko sa xel day dem ci ñoom e je reste convaincu que da ngay da nostalgique parce que bu doon lañ daan def dañ koy def xale yi dañuy def comme ñoom. Mm-hmm. te loolu daf lay manqué ou pas. Euh, non du ma manqué. Mm-hmm. c' est vrai que gis nga Roger Mendy boo ma ko tudd. ak Bokandé mm-hmm. ñoom ñaari ñu ngi ñu ngi ci l' équipe du siècle au Sénégal. Mm-hmm. alors nekku fi. waaw dama lay passe Roger Mendy. waaw. allo. allo oui. Euh, Roger ñu ngi lay nuyu. kontaan nañu ci euh, sa woote bi ci euh, quartier général. déception nga am. non man maa jëkk a contacté parce que am na benn baat bu ma dégg foofu baat bu ma neex. Mhm, muy na dégguñu ko fii ci euh, plateau bi. non man man baat bi ma ah. waaw waaw waaw nga ni nga ni Roger. non baat bu neex laa dégg foofu mooy baatu doyen laay jow baat bu neex. <laughs> sama xarit kon kon dama la koy paas directement en tout cas ñun ñu ngi fi Malal mu ngi fi doyen laay jow tamit mu ngi fi léegi nii rek nee bokk ngeen. yow ak ñoom Bocandé ci joueur du siècle ñu ñu ñu ñu passe la d'abord Père Lay Diaw. Mhm. merci beaucoup. Roger bonsoir. bonsoir Don Lay. Roger souffrir nga de bi ngay seetaan match bi souffrir nga de. non dama souffrir ba pare nag mer. ah yaa dëkk <laughs> waay dama souffrir ba pare mer. mais mais Roger. tey fan nga mënoon dimbalee xale yi. tey boo fa boo fa nekkoon ci banc bi fan nga leen mën dimbalee tey. non mais d'abord dama bëgg a xam Roger lan moo tax nga mer. non li tax ma mer mooy que euh, on peut pas dominer presque pendant cent cinq minutes sans pour autant gagner ce match. Mm-hmm. Adja mm-hmm. parce que cent vingt minutes dafa metti. Mm-hmm. parce que dégg naa tuuti rek. parce que dafay metti euh, pour nga gagner yenn match yi dafay metti trop. parce que on parle du mental. et le mental. ñun ak Camerounais yi ça fait deux xam nga tey. Mhm. coupe bu mosee ñëw sa dëgg quatre fois. nga représenter le continent sur le plan mondial pas mal de fois. mental mhm. dafay taxaw. ñun fii coupe mosu fi dugg. coupe daf fii waaj a dugg. buy waaj a nag dafay ànd ak lox day ànd ak tiit doo ànd ak sa sago. dañuy ŋaf ŋafi dëgg la. waaw loolu da jàpp te def lu bari daf lay daf lay sonal. te boo ko xoolee match bi tey nu mu demee coup d'envoi bi ñoom ñoo jëkk a yor ballon bi daal ñu koy sànni. Mm-hmm. ñoo ñoo ñor. ñoom ñoo yor ballon bi daal ñu koy sànni daal na fekk le jeu. Mm-hmm. ñu ñu def jeu bi di ko def di ko def di ko def on a tout cherché boo ko am na yenn moment ñu ngi doon sotti milieu terrain bi commencé di sànni ballon bi. Mm-hmm. foofu la ñu commencé di wàcc complètement après daal di jëlaat le jeu. Mhm. du Dominique mais boo ko xoolee on avait eu des situations pour marquer des buts mhm. mais les occasions nettes c'était euh, Camerounais Camerounais ñoo fa amoon ñaari occasion net yoo xam ne ils pouvaient scorer nous on a pas mal euh, de situations de jeu euh, pour marquer des buts mhm. donc mental boobu dina dem ba benn situation dafay egg fii nga xam ni ñii gën a la xalaat ni Roger Mila andi na ko fi Eto'o andi na ko fi Mboma andi na ko fi ñu bari andi wu ko fi. Mhm. ñun kan moo ko fi andi. Mhm. dina am benn moment da ngay dem ba commencé jaaxle ci biir terrain. Mhm. en ce moment là ci ngay doog a xam mentalu ñële. parce que doon noo ëpp mental mais fekkee tey nag ci biir football la. ñooñu ils ont défendu jusqu'à la fin ils ont eu à dérouler certains moments et c'est normal parce que dana am y a y a des temps forts e des temps faibles dans un match même quand tu joues avec une équipe faible bu commencé pousser dina jël temps ça nit ñi ñun ku ci nekk moo xam ñaata la war a durer ça peut durer cinq minutes comme ça peut durer quinze minutes mais ñoom ci seen temps fort ils ont eu des occasions nekk ñun ci sunu sang on a eu des situations pour marquer des buts. C'est pas pareil. Euh, entre l'occasion but et des situations de, pour scorer. Donc, euh, tey euh, man damay ne euh, li ñu manqué defe naa ñu ngi ci yoon bi parce que boo xoolee équipe bu Aliou Cissé du début jusqu'à jusqu'à la fin. am na benn peeru axe central parce que man damay jël rek li ma neex ah, ak li ma gis. mooy que le père Kara Koulibaly ils ont fait trois matchs sans encaisser de but. et ça c'est très important. kon on a une très grande défense et une équipe qui née. maintenant dañuy xool rek li nga xam ni moo ñu dese. Mhm. te li beaucoup plus sur le plan mental. qu'on doit travailler là-dessus pour mën a egg si fu ñu séntu ak fu ñu hmm. yaakaar a mental mental bi nga wax léegi hmm. muy loolu hmm. loolu lañu war a egg si mais am naa dégg naa si tamit ay wax yu dul jeex lu xaaj bu ñu demee booy comparer deux attaquants entre Moussa Sow et l'autre il y a il y a un killer et il y a un travailleur. Mmh. Le killer c'est Moussa Sow, le travailleur que de faire un travail défensif attaque, attaquant qui récupère des ballons de but, qui les remonte et avoir la, lucidité de marquer un but. Les gars, c'est trop demandé à ce jeune parce que l'effort défensif qu'il apporte à l'équipe, c'est tellement grand qu'il perd la lucidité pour les mettre au fond. tey ku Mambiram daf ñuy sonal vraiment il n'a rien compris. Mhm. parce que Mambiram mhm. vraiment liggéey bu muy mhm. un attaquant benn gis benn benn effort bu tuuti lay defar avec beaucoup plus de lucidité et patience duñ ko jox mu daal du ko ci mais lui ne peut pas être au four et au moulin et vous lui demander de servir le pain ça c'est aussi loolu rek laa bëggoon duggoon benn avant goût. balaa may dégluwaat yeneen questions yi. maa ngi leen di euh, am na loo ko laaj sànq ma dagg ko. Euh, euh, ma maa ngi ko doon laaj tout à l'heure uh-huh. avant nga tollamti foofu. Uh-huh. dama ko doon laaj tout à l'heure tey bi muy xool équipe bi. Uh-huh. am envie dimbale leen. tey ji Roger boo fa nekkoon ca Bamba fooy laal looy laal pour dimbale équipe bi. sachant que ñoom Roger defe naa andi wuñu coupe ba tey. ndeysaan non musuñu gagné oh. coupe d'Europe euh. musuñu gagné coupe d'Afrique xam nga ce qui m'a fait la coupe d'Europe parce que Roger Mendy est vice champion d'Europe. macha allah. il a joué une finale de coupe d'Europe. Mhm. en 92. en 92 il n'a pas encore joué une finale de coupe d'Afrique. gis mhm. nga dafa indi li ñu doon wax tout à l'heure mhm. mais euh, profilu Roger Mendy ba nga ña parce que Alaaji Diouf dem na Fadiga dem na Tony Sylvain ca baaba Lamine Diatta nga fa 2012 jël nañu pouvoir bi bon mais li ci des foofu la ñu mën a yem li ci des ku ko maîtriser woon indi ko jox ko équipe bi alors li ñu manqué pour ñu gagner bis bu ñu ko xamee daañu gagner mhm. on avance ñu ngi avancer parce que je disais à quelqu'un gis nga Sénégal kañeegul coup d'Afrique mais li nit ñi fàtte Pape Cheikh mosuñu def Coupe d'Afrique bu bon. aussi. dama lay jox ñaari exemple xam nga yan score yu luur la ñu gën a mus a jël en Coupe d'Afrique. score bu luur yi gën a luur. 3-1 2008 deux buts d'écart 2-0 contre Algérie en 2015. benn ngo deuxième pour la première fois ñu dem Coupe d'Afrique gagné wuñu benn match. 3 fois 2-1. Mm-hmm. en 2012. et souvent ñi gagné Sénégal dañoo jóge foofu gagné Coupe d'Afrique bi dès ce soir je supporte le Cameroun dès ce soir. Mm. je supporte le Cameroun xam nga pourquoi. Mm. man dama bëgg ki ma éliminé gagné coupe coupe d'Afrique bi. waaw comme ça sax duñu ne. daf may rapproché si si daf may rapproché léeg-léeg nga dégg mbër mi bu daanoo daal di ni kii dana daan ñeneen loolu la souhaité. dana daan ñeneen. Hmm. mon souhait le plus ardent tey fii laa ko wax solennellement mon souhait le plus ardent moo di Cameroun gagné Coupe d'Afrique bi parce que su Cameroun gagné Coupe d'Afrique bi danañu rapprocher de son titre da et regarde la compétition ni mu regarde compétition li muy def Pape Cheikh xam nga Cameroun a ngi demi final benn match la gagné. xoolal loolu. <laughs> tey football. match la gagné. c'est football. Guinée-Bissau la gagné 2-1. dëgg bissau ko ma ne woon 1-0 mu xataraayu fippu dellu si gagné ko 2-1 à la mi bissau ma ne dafa nul. Euh, ak Burkina nul ah. ak nul ak Gabon 0-0 bi muy qualifié 3 bi la dugal encaissé 2. Mhm. tey mu éliminé ñu à l'épreuve du tir au but mi ngi ci quatrième match benn victoire mi ngi en demi-finale. Mhm. Mhm. compétition ngo mhm. daf ci am ay yu kenn mënul prévoir mhm. te doo ci mën dara da nga koy subir. Mhm. da ngay janook moom. Mhm. subir que. voilà voilà moi je pense qu'on va permettre à Roger Mendy toog quand ci salon pour mën a àggali euh, seetaan quartier général bi ñu ngi lay gërëm bu baax pour finir euh, euh, yàgg nga ci compétition yàgg nga sigil je dirais pas Sénégal mais Afrique ci jotaay yu ni ci compétition yu ni mel tey lan ngay wax sénégalais yi douzième gaynde bi pour ñu dalal suñu xel parce que ñun ñëpp tey dañu dañu nar a fanaanoo ak déception Roger. Mm. non waruñu fa naan ak déception parce que douzième gaynde bi lenn rek la war a xam. Uh-huh. ni ki xale yi dañ ciy teg gàcce ngalaame parce que coow bi bari woon na trop man ni ci fogoon ci woon ñi doon wax laa bokk dès le début. Uh-huh. on gagne mais on n'arrive pas à convaincre. Uh-huh. bi CAN bi commencé le premier match on a joué certes parce que les Tunisiens euh, ils remonter le score parce que dans en cinq minutes on a marqué deux donc euh, effet de surprise boobu moo ñu permettre ñu dem mais on a bien joué mais il y avait une très grande réaction des Tunisiens. li hmm. nga xam ne dafa dem ba nëbb suñu football ñu daal koy hmm. mais c'était pas démérité du tout. Hmm. et les gosses ont dû résister. jusqu'à jusqu'au euh, coup de euh, Maintenant, il y a une autre chose. cette équipe revient encore contre euh, le Zimbabwe. Mhm. ñëpp foog di Zimbabwe parce que gis nañu Zimbabwe Algérie metti woon na trop. Mhm. ñëpp ñu bari si naan ne Sénégal dina am soxla. Mhm. ils ont dompté cette équipe et rendre le match beaucoup plus facile à leur manière et gagner ce match. mais bi gën a neexati. mooy l'équipe titulaire a été reposée. beneen équipe bi ñoo andi beneen caractère bu nga xam ni yaa ngi koy mu ngi kooku moo doon Sénégal bu njëkk ba. Mhm. ñu koy jiital ñaari yoon muy dabe di egsi. ça veut dire que cette équipe avait un petit peu de mental. Mhm. mais c'est mental u gagné coupe d'Afrique moom la ñu amagul mais bu ñu ngi ci yoon bi parce que li ci des soreetul. yàlla baax donc moi je vais dire seulement une chose. Mhm. à ces de les encourager. de les féliciter. et de les pousser vers de l'avant parce que c'est pas encore fini, parce que nous avons les, euh, qualifications de la Coupe du Monde coupe à du venir, monde. à préparer aussi. Parce que l'île mhm. liggéey la boo xam ni à lui sujet, il faut lui tirer un grand chapeau et l'encourager. Mm En plus, ces gosses-là, mhm. boo xoolee ñu ñuy footballé nga xam ni ñii ce sont des gosses tellement éduqué parce que auto éducation dafa am ci joueur sans pour autant entraîneur bi ko def boo yéenee mu ñëw mhm. am na yenn équipe yoo xam ne bu ñu footballé da ngay ne ñun ñii danoo xamante mais ñii xale yu yaru lanu xale yu dégg wax lanu dégg seen waajur xale yi nga xam ne dañu dem ils étaient là-bas pour défendre le peuple et ils l'ont fait avec un grand D mhm. Roger. Avec un grand D. Il faut les pousser parce que je me, je me suis dit, une équipe est née, Bonjour, on a papa. une équipe. Maintenant que tout le monde se met derrière, au lieu de faire des chasses euh, sorcières, de chercher le coupable, des trucs comme ça, il n'y a pas de coupable ici. Ok. Roger. Bon. Alors. Oui. dama bëgg nga wax Pape Cheikh ba nga dribblé François Mitterrand. soo ko wax man ma wax la. yow euh, tamit tey histoire ba François Mitterrand président de la République. di rek dal na xel. c'est qui top. c'est lui qui a dribblé le président de la République française. ki ah. di Pape Cheikh a ngi nii toog soo ko waxul ma wax que niñ ko. dribblé Roger mag la léegi man ngay waxal depuis sànq. Roger wuyul Pape Cheikh. Pape Cheikh oh. waaw. non dribblé bi. Euh. mooy que président dañ koy jox dossier mu réglé ko kenn du ko jox bal. <laughs> bon danaa ko ko nettali kon léegi danaa ko ko nettali. merci Roger Roger danaa ko ko nettali Pape Cheikh merci ñu ngi lay gërëm bu baax bonne soirée. Pape Cheikh jërëjëf waaw. Uh-huh. xam nga lu Roger def. Uh-huh. finale Coupe de France. Uh-huh. doom ji ne que papa amène-moi le ballon de la finale. waaw loolu loolu c'était en quelle année. Coupe de France avec Monaco les. c'était il y a longtemps bon les années 80. ok ok. doom ji di ko papa amène moi le ballon de la finale mu ni ko d' accord. Mm-hmm. Roger di jouer di xool crone bi dafa bugg mu jël ballon bi. wallaahi di jouer di xool chrono bi mu des poignée de seconde mu daw laaj ko ñu jox ko ko muy miime passe. pour ko ñu siffle fin de match mu jël ballon. mu denc ci ballon bi waaw léegi ballon bi la bëgg denc te il reste ko song mu dribble leen na ni su ko ci ballon bi di def geste di def kii ba arbitre bi ni fin mu bokk ballon bi jël. waaw waaw yóbbul ko doom ji. ah pareegul des na François Mitterrand. dafa dribblé Mitterrand. dafa dribblé Mitterrand. kon ñun li ma. parce que dafa bokk ballon bi. dafa bokk ballon bi. bi muy jëli Euh, euh, euh, bi ñuy jëli coupe ak médaille bi. <laughs> mu bokk ballon bi yéeg. ndeysaan. ñu leen di takkal médaille bi. Mhm. mu jël ballon bi ballon bi doom ji bëggoon. Mhm. dénk ko François Mitterrand. François Mitterrand dafee daf ko ko may. <laughs> nangu bi mu jël ci final bi. la mhm. dénk François Mitterrand François Mitterrand ko ko may. Oh. Roger takk médaille bi xam nga ki nekk dañ lay jox coupe bi nga yëkkati ko. loxo la ngay. ñaari si kaw. ballon bi mu amee. mu denk ko président bi. dénk ko président François Mitterrand. Mitterrand ndeysaan Mitterrand defe nii daf ko ko may. oh. Roger yëkkati coupe bi. François Mitterrand di wàcc waaxu mu foq di balam daw. waaw waaw mooy. <laughs> à chaque fois compétition bu mag am coupe du monde wala coupe d'Afrique waykat itam dañ ciy dem. si si ah euh, Pape Djiby Ba Youssou Ndour Omar Pène et tant d'autres euh, ren euh, woy yi ñu accompagner ci kan bi bëri na mais bi gënoon neex sénégalais yi defe naa bu ñu doon joxe titre tubu kan man sañ naa wax ni mën nañ ko ko jox muy Abiba ak Sidiki Diabaté Abiba qui a beaucoup de talent elle pour woyal ñu ko parce que ñun duñu décourager douzième gaynde jusqu'au bout voilà donc nañu déglu Abiba mu woyal ñu ko puisqu'on est fair play ñun tamit Abiba tu corazón. c'est vrai que c'est l'Afrique qui gagna alors Abiba félicitations beaucoup de talent découragé wuloo quand même parce que yow yaa ñu wax ñu jouer ñun ñu fair play parce que Afrique mooy gagné même bu fekkee Sénégal gagnewul tey Afrique ba tey moom mooy gagné. Euh, euh, hmm. alors on t'entend pas tu peux mën nga taal sa micro. Voilà. <laughs> bon, après tout, on est le même peuple, on partage euh, les mêmes traditions et cultures, donc euh, c'est euh, qu'un jeu, on peut dire, et que euh, on doit, on devait être fair play. Et j'ai euh, bien vu que le que l'équipe du Sénégal a été très fair play mm -hmm. et euh, que malheureusement on l'a pas gagné, mais quand même. n'importe qui ici euh, Cameroun et, ou euh, notre équipe gagne. lépp Afrique mooy gagne ouais c'est l'Afrique mu ñëw euh, pour woyal ñu li nga ni def na ko ak euh, Sidiki euh, Diabaté ci kanam dinañu amaat amaat beneen invité bu ñuy buy ñëw woyal ñu Ndiaye am na loo bëgg laaj Père Laye Diaw waaw li ma bëggoon laaj Père Laye Diaw mooy que équipe nationale suñu préparer pour dem kan wala ñuy préparer pour dem defi match bu am solo est-ce que dinañ koy euh, consulter pour mu joxe ci xalaatam avant muy dem. Mm-hmm. ñaareel bi malal laa koy laaj. Mm-hmm. am na ku ku ci sant Dioum nee na kooku lawbe la. <laughs> malal dee ngi rek. loolu da jox ci wax nee na lawbe la. c'est-à-dire joueur Zimbabwe bi kooku ma ñu dul wax santam. àddinaa doon xaar. commentaire u malal. moom Doudou Diagne ko tuddee. Doudou Fall noo ko tuddee. Doudou Fall. <laughs> mais c'était extraordinaire ni Sénégalais doon xaare match match Sénégal ak Zimbabwe ndax yow. mais xam nga dañuy fàtte ni ñun dañu yar. Mm-hmm. te bi ñu yar dañu yaraale dañu moñaale ak orma. Mm-hmm. te ñi ñuy déglu am na ñoo xam ne suñu morom lañu. am ñoo xam ne ñun ñoo leen mag am ñoo xam ne mat nañ ñuy waajur mm-hmm. ay kilifa lañu mm-hmm. donc sooy wax ñooñu toog bàyyi seen ci jëla jëglu da ngay a bu a baax li ngay wax mm-hmm. donte santam la noonu la judduwaale mais fii xam ne sa loxo si gémmiñ bu ñu par exemple comme Kalidou Koulibaly mais Koulibaly ci ci ci xam nga muy tekki ah mais seen làkk la mais amuñu sant Coulibaly wala duñ ah, ay soose. ay bambara lañ bambara la Coulibaly ci boppam. la aussi. donc joueur bi sant Dioum. Euh, Ndiaye Ndiaye nee na da nga ne lawbe la. Cameroun la Cameroun la défense bi la nekk. donc moo wax ni lawbe la parce que Dioum. Mhm. culturellement Sénégal. lawbe yi ñooy sant parce que ci façon bi ngay commenter da ngay boole particularité Sénégal ak euh, euh, commenter en même temps match bi. parce que Séné loolu mooy Sénégal. Mhm. ñun am loo xam ne dañu koo jàng à l'école auprès de doyen. Mhm. auprès de sa papa. Mhm. mais am na loo xam ne dañu koy jëlee si mbedd bi. donc il faut faire l'alchimie de ces deux choses là. xam nga sànq yaa ngi dégg doyen mooy wax liif laam. xam nga loolu axuraan la. Mhm. mooy ijji. Mhm. mais pourtant dugal ko ci reportage bi mu jàll te frustré wul kenn. Mhm. parce que dafa am philosophie. dafa am philosophie bu nuy café ak nit ñi. di wax ci biir terrain parce que dañu man damay reporté match yi mais dem ay récréation. dañuy ne ci foofu ba si yàgg ñu génn. wëri koñ def récréation jaar ci parenté bi dugaat ci match. moo tax nga naan daaj na ko mbëkk ndaj. waaw loolu non parce que xam nga tam loolu kii lay déglu te amul i toog ci rajo bi di lay déglu. sooy wax gaa yi ngi fubal gaa yi ngi fubal xamul ban may la ñu sol xamul lu ñu taxawee nga ne mbëkk nag ko xamul noo ko mbëkkee mhm. du gis donc da ngay wax nit ki da ngay wax ci terrain bi la nekk wala mun ngi koy gis dafay jàpp rajo bi nga jël rajo bi la ko télé la moo tax booy wax am jóob andil njaay doo ci boole jaaj mais Sénégal jóobeen yi ak njaay ah, léegi waa dindi ñu <laughs> def sa bopp njaay nga def sa bopp léegi dinaa wax am jox joxal jàllo <laughs> am jox waaye si boobaa ki nas wax boobu à l'époque ba ne am jóob ak njaay dina la porter plainte ndax wax waxoo ko ni mu ko waxee woon mais am jóob ñu njaay moo ah, mag de waaw kay kooku moo lay porter plainte ñooy kal yi a yi gën a célèbre <laughs> waaw ñooy kal yi gën a célèbre donc question perpétuelle waaw mu ne ndax gaay bu ñu dem ci compétition dinañ la consulter déedéet pourquoi man maa waroon poser question bi peut pour pourquoi. Mhm. bon euh, Sénégal moo mel noonu. soxla wu ñu mag. Sénégal ñoo mel noonu soxla wu ñu mag da ngay gis léeg-léeg mag mu nekk ci service da ngay gis mag mu nekk ci service war dem retraite am na ñu koy pousse pour mu génn. dëgg la am na ñu bëggul mu dem. Mhm. parce que euh, présence am dana leen éclairer ci lu bare. Mhm. moo mel noonu. da ngay accepter ku bëgg nga gunge ka nga gunge parce que amuloo droit bañ. Pape Cheikh léeg ma dajeeg journaliste yu ma jooyloo. su ma jooyee rek journaliste la ma jooyloo. léeg-léeg dafa dajeeg ku ma ni yaa tax ma choisir profession bi. loolu daf may jooyloo. ku la bëgg ba choisir profession bi. ndax yow. daf may jooyloo. parce que influencer nit mënul weesu lool. am naa ci benn tegtal ci sama doom ji papam Golbert mës sama ni malal yaay papaam yow rek yaa ko intéressé gisuma malal gisuma ko jusqu'au jour où ma toog ak malal ça m'a fait plaisir ma ni def naa ak moom luy faral di am seulement ci ouvrier menuisier bi rek la doom ji di faral di fekk ci atelier bi parce que mooy profession yi amul retraite mhm. mécanicien bi doom ji fekk ci atelier bi tailleur bi doom bi fekk ci atelier bi mais ci li ñuy def c'est très rare mm-hmm. te kii dafa di sama doom bi may ñëw à la rajo papaam laa fa fekk mm-hmm. papaam laa fa mu xelam dal toog ci li malal nekk ak man xelam dal mm-hmm. malal daf ka naan fii à Dakar lay jow mooy sama papa alors loolu dafay léeg-léeg ma laa jooy ah <laughs> mais doyen est-ce que say projet jiite CAF bokk na ci déedéet parce que euh, jiite kaaf li tax mu jafe euh, moo di foo nga foog nga am ñu lay gunge. waaye taxawal tax nga ne ko waaw xëy. ma sax malal loo ci xamul. waaw kay bi da ko moomul de Alfayda Pape Cheikh ko moom. non sérieusement li muy wax en fait tey ma ko sax bi may bi may génnee waaw kay bi. voilà c'est li muy wax li muy wax dama ci dama ci gis bu fekkee ba nga baal ma ma jël exemple ci tubaab yi. waaw euh, bu fekkee tubaab yi la. dañuy dañuy dañuy préparer benn candidat. ci ginnaaw gis nga bu fekkee mu nekk CAF wala non pardon mu nekk UEFA wala wala wala yeneen institution yoo xam ne ci football la dañuy préparer seen candidat à chaque fois ci média yi propulsé ko ci kanam ba nga xamante ni ñoom lii la dañuy tagg seen bopp à chaque fois da ngay gis bu fekkee journaliste man chaque jour nga baal ma dama lay dama lay tëkkale kenn muy Jean Geoffroy Garatier parce que dafay toog ci média yi day joxe anecdote yi di expliquer actuellement peut-être bokkuñu culture ñun ñoom parce que ñoom dañu am internet parce que ñoom dañu am actuellement dañuy am ay archives ñun amuñu loolu. Père Laye Diaw monument dañuy am ay secrétaire d'édition effectivement. qui font des recherches à leur place qui leur donne des des copies que lire. voilà yëpp oui mais ñun am nañu archive mais li mu wax noonu mooy mooy mooy li am. mooy bi cest à dina yàgg ak yow sax nga ñaan mu jóge fi. kooku nag ci entreprise yi. c'est-à-dire duñu duñu la sargal moo tax barki démb bi la euh, président euh, sargalé nee nga des fois di nga jooy. Mm-hmm. Sénégal yëpp a jooy ndax. d'accord ci li ñu la tabb. Mhm. ci côté boobu d'ailleurs am na réponse bu mu ci apporté parce que je su ma deful bii précision. Mhm. su ma dajee ak Abdou Diouf wala Ablaye dinañ ma ni mënoon ko tontu à notre place Abdou Diouf wala Wade mhm. mën nañ ma ni un jour Ablaye bi Sénégal di wax bi la Macky Sall décoré dafa jot. tontuwuloo à notre place ma ni wax nga dëgg ci Abdou Diouf j'ai commandeur ak chevalier. Mhm. en 95 et en ci euh, Wade j'ai été ci Wade ordre national du, du mérite. Mhm. barki démb avec Macky mhm. grand croix de l'ordre national. am na ñu defee ni. guleet la c'est la première fois bii dafa gën médiatisé. am na ñu defee ni guleet la. alors bi ma déggee loolu bi ma déggee dafa jot. c'est comme ñu xaw égratigné. yi fi passé mm-hmm. déet fàtte wala fàtte fàttelu li am Sénégal waaw peut na nekk fàtte mm-hmm. mais loo ci mënti dégg rek égratignure ñuy baa nga fa mm-hmm. mel ne que ñu ak Wade defu leen ko ba Macky ñëw def ko te def nañ ko booba ah. temps la ma maasee lañ ma jox def nañ ko Diouf fois Wade benn yoon Macky Sall bërki démb bon erreur rectifiée parce que ñun ñëpp loolu la ñu foogoon te on est jamais suffisamment parce que li nga amagul moo ëpp li nga am dëgg la yàlla ngeen fa jaar foofu yal na ngeen fa jaar. amiin waaw parce que da ngay avancer rek te nag bon li ci def plaisir reconnaissance la. Mm-hmm. reconnaissance la état bi ñoo jël ci mbedd mi la fay yëngu ñu comme daf mel ne dañ ñu waa mbedd mi ne na ñoo la ko tappal. Mm-hmm. Mm-hmm. Abdou Diouf dafay tappal falang médaille. daf koy décorer di ko tappal médaille. bu lay tappal médaille day wax. il est il est ñëpp dana wax ak ñoom. Mhm. muy tappal falang médaille naan que gis nga ba nga bëri see ndar falang ni ko waaw mooy keroog ba arène ba feesee midi xale yi nekkoon ca balcon yi waroon arène xam nga arène ndar sëkk buur lañ koy wax. sëkk buur léegi moom mooy cité ñax. sëkk buur. bu feesee nit ñi dañoo yëg ci kaw balcon yi di seetaan Abdou Diouf ni ko keroog bi arène bi arène bi feesee xale yi ci woon ci kaw balcon falan ni ko waaw mu ni ko maa ngi ca woon. ndeysaan xalak su ma xamoon ni yaa nga foofu ma jël si su ma su ma jël si la ça veut tout lan mooy sa lan mooy sa lan mooy secret ORTS RTS ba TFM ak RFM mm-hmm. ba léegi rek secret nga ñuy gunge soo bëggee li ngay def rek soo ko bëggee voilà soo ko bëggee doo ko yëg comme tey gis nga tey bis bu metti la tey bis bu metti la jibo mu sama woo ci biroom boobu mooy suñu ministre kan ci waaw léegi fii la dëkk félicité ma su <laughs> dëkkandoo la booba temps hymne Sénégal lañ doon exécuté Gambie mhm. mhm. public bi di ko sifflé ba kenn déggu ko hymne Sénégal lañ doon exécuté publique bi di ko sifflé wu waaw ba kenn déggul fanfare bi j'ai dit léegi fii lu may wax j'ai j'ai quinze secondes pour trouver quelque chose hmm. quinze secondes mu jeex ma daal di le cousinage l'autorise hmm. le cousinage l'autorise bi ma jib woowoo ci bi ci bureau pour ma féliciter dafa ni ma bi ma la déggee nga wax loolu j'étais soulagé parce que maa ngi naan kii lan lay wax léegi bu li jeexee hmm. <laughs> bu lii jeexee bon c'est sensible bu fekkee ni daf la passionné dafay yomb dëgg la Pape Cheikh. Mhm. bu la passionné dafay yomb. Mhm. passion bi moo di nga koy vivre tous les jours. Mhm. j'ai été une école de journalisme en France. ñu ne ma tu nous as aidé parce que nous allons nous réorienter. nous allons nous réorienter ndekete ce que nous faisions doyul comment c'est dama génn à l'école nous sommes en 85. di dox ci boobu maa nga dëkk Porte Orléans. d'habitude maag moom maag sama professeur bi bu ñu génnee ñu dox 30 man ma jël bouche métro direction Porte Orléans. ce jour-là ma jël direction oto yi. mu ne ma mais Abdoulaye ta direction c'est ici Porte d'Orléans ma ne ko exceptionnellement ce soir je vais au parc regarder Paris Saint-Germain Toulouse xam nga booba temps Paris sénégalais ya fa nekk ñëpp ñuy daw ci PSG Oumar Gueye Sène mooy capitaine. Bocandé di avant-centre. jóge Metz nekk meilleur buteur du championnat de France sénégalais yi nekkoon. Paris yokk leen jaayoon carte de membre PSG ñu jënd ko. Hmm. alors bi ma ko nee je vais au parc il m'a dit mais tu es passionné de football Ablaye ma réfléchir cinq minutes ma ni que je vais vous faire une confidence ce que vous me faites faire à l'école depuis le début de l'année je n'y touche pas chez moi mu reculer c'est quoi ma ni que ce que vous me faites faire à l'école depuis le début de l'année je n'y touche pas ma présence toute la semaine tout le mois est essentiellement sportive je suis le chef du Resto Sport de Radio Sénégal c'est ça ce que je n'y touche pas du tout. Alors il m'a dit, mais Ablaï, tu nous as aidés, mais ça va être plus compliqué chez nous. Maintenant, désormais, il nous faudra trouver, il nous faudra trouver des spécialistes du sport. Mm -hmm. Parce que dans notre formation, le tronc, il est commun. Mm -hmm. Nous faisons tous la même chose. Mm -hmm. C'est tellement vrai que Marc Elisabeth. Il y en a beaucoup cours. Elisabeth Ndiaye, qui mhm. présentait le journal télévisé, mhm. on prenait les mêmes cours. Mhm. Mmh. soo xoolee Elisabeth Ndiaye ak Laye Diaw ci benn formation daan di ne ñii lu ñuy jàng. bokkuñu fu ñu jëm. bi ma ñibbisee ku ma joxoon journal télévisé même avant may dem ma présenté ko. Mmh. ku ma joxoon journal parlement ma présenté ko. Mmh. mais su fekkee ni fi nga orienté sa bopp. demuloo fa pour gagner xaalis da nga fa dem pour assouvir une passion mën nga ko def à vie. d'accord loolu mooy expliquer longévité bi. Oh. longévité bi d'où question bi Mamadou Ndiaye laajte léegi nii je pense que Sénégal tout le temps loolu laajte est-ce que euh, autorité yi est-ce que njiit yi est-ce que ñi ñuy dénk sport ñi ñuy dénk football euh, ñoom lan moo tax du ñu euh, la jege pour jëfandikoo sa expertise lu sénégalais yi soxla. waaw su ñëwee bon la CAF m'a décoré. Mm-hmm. en mm-hmm. à l'occasion du cinquantenaire de la CAF. Mm-hmm. au Sénégal. bala ngay am distinction boobu day jafe trop. dafay jafe. léeg-léeg sax euh, contexte bi moo ci dul favorable. ñu bàyyi noonu mu dem yow it nga bàyyi. mu jàll doo ko laaj. quelqu'un m'a dit un jour mais pourquoi doo bind mu sañu am mosuma woon xam ni am na ñoo xam ne pour ñu décorer leen dañuy bind. ñu décorer leen. waaw. Ah am na ku mu ne un jour mais pourquoi doo bind wax nañ ma ko à à la RTS. doo bind ma ni non du ma bind. Mhm. yaa ngi mel ne que ku naan bind leen pour. pour pour être admis. lu ne fànn kenn waru ko jeex. ci yoon ci yoon. mais mais mais man lu ma bëggoon xam est-ce que mos nga publier sa biographie wala est-ce que yaa ngi koy xalaat parce que je pense que sa connaissance ak sa ay expérience il faut que xale yi mun ci basé wu pour inspiré wu pour mun a xam lu ci bari ci histoire parce que la dernière fois bi may déglu rajo ngeen di reporter match année cinquante bu Brésil euh, perdron nga doon raconter. dama dem def recherche ci kooku euh, gardien de but bi. Barbosa lire histoire am yëf yi métti ma ba bëgg dee ma découvrir sax ay euh, affaire euh, malédiction du gardien noir. voilà très bien bi dañ koy jàng. ah tu si donc est ce que yaa ngi pare biographie parce que yu bëri yu ci mel noonu dañ ko war a xam. Hmm. warul warul nga xam ko di ko wax nii. warta nax saay comme li Aïssatou di wax. donc est ce mus nga ko publier wala yaa ngi koy yaa ngi xam nga bare na mag ñu dem te binduñu. Hmm. ñun suñu culture dafa oral. dañuy hmm. waxtaan rek di dem. dëgg la dañuy waxtaan kese di dem. tey Cameroun daf ñu éliminé Mansour Mbaye ba dama ko bëggoon invité ñëwoon démb xam nga lu ma koy jëkk laaj. Mhm. ba ñuy gagné Cameroun à Abidjan noo ko vivre parce que Mansour était de la délé délégation. Mansour Mbaye. Mhm. li mu bindul moo gën a bare li ngeen xam ci moom. dëgg la communicateur. waaw il était de la délégation du Sénégal en 61 à Abidjan au premier jeu de l'amitié ma nga fa toog. jeu jeu de l'amitié deux rek la 61 Abidjan 63 euh, Dakar Senghor ak Houphouët par amitié ñoo doon def yooyu échange ñun du ñu bind dañuy waxtaan rek dem Alassane Ndiaye Alou. Alassane Ndiaye Alou. Alassane Ndiaye Alou gis nga léegi ma demandé nii. Mm. Alou def na ko. Mm. limogé nañu un entraîneur national ñu ni Alassane Ndiaye alo assure l'intérim un journaliste. comme léegi bu ñu woon dama lay jox benn euh, comme léegi buñ ñu woon. Euh, Euh, bon euh, euh, Papa amadu amuñu entraîneur national assuré intérim bi le temps que ñu yem entraîneur national ba pare nag nga dajeeg lu corsé parce que defar nga sélection bu dem ba ma ko. Mhm. Alassane Ndiaye Alou c'est le père du reportage sportif mhm. par seulement au Sénégal et en Afrique occidentale française dem na daan na bind bu du woon Bokar lii mi bind ci moom am na ñu ko dul xam. dëgg la am na ñeneen. Bachir Kounta bi ngay dégg. muy def le journal en wolof RTS. xam nga ci moom laa bëggee reportage sportif. ah bon. ba 71. Bachir moo reporté ne ngeen Jaraaf. finale coupe du Sénégal Ahmed Bachir Kounta. Mhm. ak ñoom Pathé ak ñoom Bachir. Mhm. boobu aussi beneen face caché la. Pathé Dieye. Pathé Dièye beneen face cachée la bu Bachir Kounta mhm. mi nga xam ni tey jii mooy responsable porte parole famille Kounta Kounta famille Kounta waaw mhm. Mhm. mooy yore communication xam nga Pape Cheikh dinaa la wax benn affaire xam nga garabu guy garabu guy yi ñuy def nii ci télé ci rajo bi ay defit la ñii ñoo def non dama lay wax gas nga garabu guy defit rek lépp njëriñ la xas bi day faj dëgg la xob day faj doom bi mën nga ci mën nga ci jus mën nga ci njàmbaar mhm. xottitu mhm. fii buy biy nekk sax mhm. day faj xox buñ ko baccee ba pare Ablaye Diaw garabu yow da ngay xox bi waaw bay faj mu nga ko dëbb def ci ay sunguf ak yeneen yeneen i mbir dëgg la doyen Ablaye garabu guy bi ñun à contact on se perfectionne H24 parce que dañu ngay dégg xam nga reportage ay système la ak ay technique da koy dégg léeg-léeg moom mu wax bu fa nekkee da da ngay dégg sax bu ñu defee musique rek ma joxoñ man jox leen doyen moom wax parce que bu waxee di nga am loo for ci naka la ñu war a tijjee reportage suy tëj di am looy for ci naka la war a tijjee reportage soo jaaxlee tam nga woo laaj muy wax tu prends des notes quelque part comme que ñun léegi on a une génération assez tactile soo demee sa machine tu mets à université boobu nag mhm. gars yi amuñu ko Cheikh Anta Diop mhm. amuñu ko Gaston Berger amuñu ko INA voilà il est moo tax c'est une chance de les chance la côtoyer leen parce que école la ñu ñoom. université voilà université merci. chance la côtoyer leen. yow Pape Cheikh bi da doon laaj moment démb démb ngay wax. <laughs> laaj ma sànq match bi jeexee fàtt na waaw parce que fàtte mémoire bi euh, mhm. dund à l'instant. nu maanaam tactile boobu. mémoire ah, bi secret waaw mooy secret bi naka la nekkee daal. Ah. nan la mënee nekk. soo ci boo ci bokkee su fekkee ni ci loo bokk la. Mm. Euh, nettali bi dafay yomb ci loo bokk la. ba tey passion bi ngay wax sànq dafay dellu si waat. waaw ba tey. Hmm. ba tey passion bi. Hmm. dafay dellu si. Hmm. c'est-à-dire euh, da ngay da ngay def luy luy nuru journaliste ba te xam la ni yaa ngi koy def. dëgg la. Pape Pape Cheikh. da ngay def luy nuru journalisme c'est vrai que dama ko ramassé ci sama papa sama papa dirigeant sportif la woon. Euh, ci chevet da nga fay fekk ay journaux. je lisais beaucoup il est mort jeune. mais avant sa mort am na yoo xam ne ni tàmb naa ko ci moom et à sa mort ses dañu continuer di ma yóbbu au stade. Mhm. parce que sama passion du football ci moom laa ko jëlee il est mort jeune. Mhm. à 44 ans. Mhm. et à sa mort ses amis passaient prendre may dem toujours au stade. loolu des. Pape Cheikh. Pape Cheikh est-ce que xam nga bis bi may jëkk tenir un micro dans un stade dama waroon football ci stade boobu. ah bon. grand milieu terrain. dama waroon football bis bi may jëkk téye micro. dans un stade dama waroon football ma nekk au regroupement ñu jël si ma ni ma amuñu reporter j'étais déjà à rajo Kaolack. Mm-hmm.